assurance ñu mën kaa définir ci ab opération gu nga xamante ni benn partie mu di assureur day engagé wu daal di délivrer ci ab cadre réglementaire gu soxal ab contrat ab prestation ci wàlluk réalisation risque geneenuk parti loole nag jaarale ko ci ab paiement prime wala cotisation assurance la ko tax a jug moo di aar patrimoine ak nit ñi secteur assurance am place bu nga xamante ni kenn du ko naatable ci koom-koomu réew mi ndaxte nag day dugal loxam bu baax a baax ci processus développement économique waaye nag donte am na solo nit ñi di jànkonteel ak i jafañ-jafañ ak assurance yi assureurs yi léeg-léeg di tàddeel yëf tey itam procédures yi yu bari day mujjee lajj wax ni secteuru assurance transport mi ngi ci ab carrefour doon na ab euphémisme secteur assurance transport ànd ak jafe-jafe yu bari basé nag néew loolu ak surabondance gi nga xamante ni nañu ko taxawale dara baaxu ci tey nag rendement ya doyul ngir tontu ci tendance changeante ci wàllu risque bu dee client banque yi établissement bancaire yi du yi am ab remboursement doon na lu jafe lool ci ñoom géneenuk phénomène ci tendance bi nga xamante ni compagnie yi am nañu ko mi ngi soxal yenn ci ay contrat assurance vie nga xamante ni seeni bénéficiaire dañ leen di xàmmee waaye nag ñu bëri ca ñoom di ami jafeñ-jafeñ jot seeni koppar ci àpp gañu ko natt